Euh, entre force de l'ordre yi cohabitation force de l'ordre yi ak journalistes yi cest di du ñu ay adversaire du ñu ay noon ñun tamit dañuy def suñu liggéey comme ñoom dañuy maintenir l'ordre ñun tamit dañuy taataan ay xibaar jagle ko Sénégalais yi donner l'information juste et vrai ñu ngi fii pour recueillir information joxe Sénégal ñoom tamit ñu ngi fi pour maintenir l'ordre. effet yoo xamante ni c'est récurrent li ñu koy faral di dundu bëri na torop des fois damay am comme impression que journalistes yi ak les policiers il se regardent en chien de fayance alors que loolu waroon na mën a ñàkk parce que ñun ñëpp dañu nekk sur le euh, sur le terrain du travail on se rappelle euh, la fois passée semaine bi. ci euh, ci procès Barthélémy Diaz procès en appel Barthélémy Diaz bi dañu taxawoon yow sax defe naa yaa ngi fa woon jàppante ci diggante policier ak gen euh, ak politique ak journaliste yi parce que dañu taxawoon def euh, un mur di xaar ki nga xamante ni mooy Barthélémy génn ñu defak moom interview léegi bi mu génnee moom dafa ni dafay dem à la mairie pour defee fa un une grande conférence de presse mu ne journaliste yi nañ ko fekk foofu journalistes yi commencé kaas des fois tam damay gis ni ñun considéré wuñu te tamit solidarité de corps amul. yoon à chaque fois policier yi di ñu jàpp di ñu brutaliser di ñu dàqee comme si ñun waruñu def suñu liggéey ñun dañuy def suñu liggéey comme ñoom. mais sànq rek waa ji ñu ngi ko doon topp mu war a dugg ci banque bi mais gis nañ ni dañ ñee dàq fii yëpp ko ni ñu fay taxaw loolu du yoon ñun ay journaliste lañ am nañ droit dem jël ay image def ay photo parce que suñu liggéey lañ nekk ñoom tam ñu nekkee seen liggéey nañ bàyyi dañu dàq état tam war responsabilité mu wax ak ñoom parce que ñun ay journaliste lañ am nañ droit topp waa ji pour jël ay image euh, interviewé ko dañuy gis ni chaque jour dañoo assainir la presse 3 euh, mai journée mondiale de la presse aussi dañ ciy wax mais war nañ ci bàyyi xel quoi sono nañ trop